du président de la République Macky Sall euh, dans cette affaire euh, l'opposant boo ko waxee noonu à Ousmane Sonko ñu bari dañoo jàpp ne xëy na euh, am na ci responsabilité nga am loo bind aussi ne du ci sortir vainqueur mais yëf yi ni muy déroulé woo jamono ji ni suud na parti bi emprisonné nañu Ousmane Sonko ñaari condamnation troisième bi c'est en voie malgré tout ça nga jàpp ne du ci génn indemne fan fan nga ko teg Macky Sall mook Ousmane Sonko dootuñu bokk géew pare na c'est fini fi ñu egg ils sont allés trop loin. non non non Macky Sall moom pare na. waaw xam nga dootul dootul sëgg bëri. mais am na ñu ne il n'en a pas fini avec les Sénégalais ah. loolu beneen débat la mais. waaw loolu après <laughs> dañ ci egg mais. Uh-huh. du sëgg bëri waa ji. maintenant da ngay xool taarix histoire. Mm-hmm. président de la république. adversaire am bu mu gën a xeexal. xeex ak moom dëgg dëgg dëgg kooku mooy partenaire parce que boo xeex ak nit politiquement xeex bu metti comme Ousmane Sonko ak Macky Sall fi ñu egg bis bu ko Ousmane Sonko remplacé woon dina rus fayu mhm. ma jox la exemple dans l'histoire ah exemple bu gën a yomb mooy Serigne Touba li ko tubaab bi def yëpp ba mu ñëwee dafa baale. Mhm. parce que bu doon fayu Nelson Mandela Nelson parce que gis nga baale boobu xam nga pour lan la grandeur la mais kii lu ma teg yëpp man mënu ma koo mënu ma koo teg mais à l'exception de Ousmane sonk que Ousmane bu nekkul candidat kenn mën naa nekk candidat mais à l'exception de Ousmane Sonko beneen président bu ñëw day fayonteeg Macky Sall te xam nga bu yenn président moo gën a dangereux ci moom ñu ko gën a jege. issu gis nga gis nga Cameroun. Mhm. ay jo ba mu demee ba feebar dafa jël yëf yi jox ko son première ministre. Paul Biya wóolu ko. quatre mois Paul Biya ne ko atteinte à la sûreté de l'État génn ko dëkk bi. Sénégal la mu def France 89 la njabootam bëgg ñu suul seen baay Cameroun Paul Biya bañ ba joon si yàlla tey njabootam dañu xaar Paul Biya génn àdduna pour ñu indi seen néew baay. te kooku la a wóolu. Angola. quand mhm. Dos Santos ba mu paree jox pouvoir bi laaw li mu njëkk a def mooy li xewoon Sénégal rek doom ji. fait partie des hommes les femmes les plus riches. Mhm. tey suñ su à côté de chez nous. Mauritanie Aziz. Macky Sall ak Karim Wade. Mhm. qu'est-ce que Abdoulaye Wade n'a pas fait pour. mais Macky Sall il est de manœuvrer pour que euh, ki koy remplacer jóge ci euh, raawam ci kawam donc da nga jàpp ne c'est c'est une mën na lenn de mën na ko état Afrique moom nu mu demee mu am na doole nit diw du dem. Mhm. mais diw may remplacer mënu ko votu Sénégal. votu Sénégal moom man ragal naa sax nga ne nga ne ànd ak Macky Sall sax moo gën a ñàkk wóoradi <laughs> ànd ak moom